على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ماخني وغادني لي بالتخلي doomi Mbàkke yëpp doon benn bokk ndey bokk baay indi seen participation ci bisu Amor Hann gi mi dañ naan Mor Hann nag waaye man tey bis ni ki tey Mor ànd gay laa ko tuddee ba Mor mii bay boo ñu ànd ak moom Mor ànd gay laa ko tuddee bis ni ki tey Mor ànd gay laa ko tuddee léegi nag jigéen mag ak ndaw jóg dégg tëgg maa ngi noonu salade yaa nii gis nga jaa ngi nii ndox maa ngi nii boisson baa ngi nii jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi ñoom ñëpp doon benn bootu ci ki nga ni mooy Mor ànd gi ñu ni ko daal li wax mooy ànd na nag yow tey ci bis bi waaye ba bis bi jàllee tam continué nañ dëgg-dëgg di ànd ak yow. dañuy yëkkati kàddu jox ko Mor ànd ak yi mu yëkkati kàddoom santal boppam élèves yi santal boppam dëkkandoo yi santal mbokk am di jàmm yi ñun ñëpp ñu bokk maa si déglu Mor sant yàlla sant sëñ Fallou mi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moom lañ fiy def tey jii ñu koy def fukki at yeeg ak juróom-ñett yoo xam ñu ngi koy def fii xale yi lii ñoo ko def. kii benn cër rek la ci xam ci cant gi kon lépp mat na ñu ngi sant sëñ bi sant bi nga xam ni ñoo fi def lépp di sant élèves di sant parents d'élèves yi lii lépp ñoom la ñoo ko dajalee seen bopp indi ko di sant bi lépp suñ sëñ Fallou école bi yàlla na dem kanam école bi élèves yi nga xam ne ñoo ciy wut ndam di wut ay résultats yàlla nañ ko yàlla may ñu am ay religiations yu mag ba tekki. waa sëñ mu mel ni école bi li si a def lépp. ak li fi war a jëm yëpp daa mel ni jigéen wu leen ko fenn ñi ci biir ñoo ko def. ñoom ñooy liggéey ñoom ñooy jàng xasaat yi ñooy ñooy tari. sànq damaa dégg ak nodd ci biir. waaw ñoom ñooy nodd ñooy def lépp ñooy bale. dégg naa mel ni nga ne xaw ma wàcc nañ ay kaamil xaw ma. lépp wàcc na ñaata kaamil. su ma téeméeri kaamil wàcc nañ ko fi. jeex na. wax dëgg yàlla mbégte rek laa am. ndax baanaka man bokk naa ci ñi gën a tuuti ci liggéey bi yàlla dogal na nag man maa nekk ci kaw maa nekk ci bopp bi waaye bu sottee tey élément yii nii jàmbaari Sëriñ Tuubaa yii ñoo ko waral dañoo bàyyi seen temps bàyyi seen yitte yëpp yu ñu amoon yàlla xam na ko démb trois heures du matin mi ngi fekk mi ngi fekk ci liggéey bi loolu nag du man bu réussir ñoom la ma leen ciy sant di leen ci gërëm ndax bu doon man kese du demee nii ñoo ci def seen doole def ci seen xaalis ba pare def ci seen temps may ñaan nag ah, lépp loo xamante ni ñu ngi koy ut si école bii nii yàlla nañ ko suñu borom yombalal ci barke liggéey suñu fàllu bii nii ñun ñëpp may sant tamit tonton Morane mii di ko ñaanal fan wu gudd lool ak wér yaram ndax ah, taxawaay bi dara la ndax ñun élèves yi dañoo bëri sikk lool waaye bu dee kon day xool ci ñun suñ sikk kenn kenn du fi jàngee ki ah, di ci teg tamit tonton Omar ndax tonton Omar tamit ku compréhensif la ak lu mu mënti demee boo ñëwee wax ko dina la ah, prêter oreille attentive dina la déglu wax la waxi nit nga xam ne kii lim la wax lu mën a nekk la ak euh, problème bi lum critique critique critique dina boo ko boo ko diisee rek dina dina ci def kéem tolluwaay kàttanam incha allahu rabbi di sant tamit suñu jëwriñ ji di bamb sociaux ndax man yàlla dogal na ni euh, yàgg naa ci école bi waaye ren la yàlla dogal ma jiite lii nii waaye seetaanu ma ci benn yoon conseil yi appel chaque fois mi ngi may woo di ma laaj fu liggéey bi toolu def leen nii boo leen defee nii dana baax di ci teg tamit Baye Mandoumbe nga xamante ni daanaka moom mooy yor bi mais daanaka mun naa ne ci zéro degré la bokk ndax leen di zéro degré seetaanu ko zéro degré doxin bu ñu war a doxee su fekkee ne dajee gis lu dëng dinañu woo nañu def leen nii bu fekkente ne gis na lu ñu war a améliorer dina ci yokk xalaatam di ci teg Baye Samba tamit mooy njiitu école bi mooy président gouvernement scolaire bi waaye tamit moom it taxawaayam rafet na ndax ah, mënoon naa jiite rek de moom mooy xool nu ko neex mu doxalee mais lépp da ciy diisoo bu ah, diisoo bi tamit bu jàllee dana la dimbali yoo tamit ci sa xelum boppam loo xam boo ko defee dina jaar yoon du ñàkk nag ah, nit ñuy liggéey ak yooyu noonu moom xëccoo gi mooy tax liggéey bi jàkk ñu ciy jégaluwaat bu baax ñun lii la lañ ci bëggoon liggéey bi kanam di sant tamit suñu jëwriñ ji Baye Ousmane Mbacke kii moom wax dëgg yàlla man wax dëgg mënu ma xaa gërëm ndax ñun fépp fu ñu doon dem ba une heure du moom doo mës a dégg mu ne sonn naa ñun ñooy sonn daan ne. Seydina Suñ Bamba. waaw soldaaru Suñ Bamba la te mënoon na ni moom ci sëri Suñ Bamba yi la bokk daa war a toog ñu defal ko lépp waaye lépp seetaanuñ ci dara ak ñaaneeg yëpp ñu ngi koy gis ñu ngi sant daal di gërëm di ñaan daal lan yàlla nañu ko def ati at yi at yi at sant sëñ Fallou rek di gërëm nag bu baax suñu frère suñu directeur général bi suñu maire El moo Morane Gueye ndax li ma la wax rek mag la ci man lépp la ci man taxawuñu nag fu ne gis nga école bi ngay gis xaaj bi kenn fayul te kenn du ko xam da ko ubbi da ci jaamu yàlla da ci dimbalee ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw xëy moom dafa maa place pour wax ko waaye man maa koy wax am na ñoo xamante si école bi ñu ngi fi jàng ba fi seen i diplôme ba génn bay liggéey te mosuñoo fay un franc te kenn xamu ko kon ci social lay dox lii muy def nii li ko xale defal nii dañ koy jéem a fay waaye pareeguñu ndax moo kon daal moom mel ni baat boobu ñu naan sos yàlla moom daa bokk xam nga social social daa bokkut ak sos yàlla kon daal Mor ànd gi dafa sos yaal. Mor ànd moom social la. te li may wax ni naa ci bëri ñu ma ci seede. école bii nii da ko ubbi de waaye social tax mu ubbi ko. kon na lii mu ci def yàlla na ko sëñ Fallou gis mu dem ba jur ay école école école bu doonee def ngir wala day doon day bu doonee def puukare wala dara kon fii fees na dell waa li muy def bëggul kenn yëg ko école bi lépp lu fi am cant gi élèves ñoo ko def mu jël ci loxoom moom mii nag mu dugal loxoom ba ci biir ñi teel nag. dañ koy ñaanal daal lu mën ren yàlla na mën lu ko raw déwén